daleen ak jàmm seen seen bii di Buzz M TV ci seen acte du jour. réewu Sénégal daal dinay créer benn contre-feu sénégalais yëpp daal di ciy sëgg bu daal di jaaree ci li ni mel daal di valider élément système bi yëpp. lu tax ñu wax li moom mooy que ne ginnaaw ba kii di Bassirou Diomaye Faye déposer dossier de candidature am biir conseil constitutionnel ba ñoo ñëwee di saytu. ndax parrainage am yi baax nañ waaw wala déet dañoo recalé woon candidature am ne daa war a andi lu tolloo quatre cent parrain ñu daal di soog a valider candidature am biir conseil constitutionnel. ginnaaw ba Sénégal yëpp di yuuxu scandale naan loolee mënta nekk ci réew mi di Sénégal. ndax buñ ko tegoon ci yoon kii di ba Bassirou Diomaye Faye kenn du ko recalé ndax ci biir partie bii di Pastef la bokk te ñooñu ñoom ñoo ëpp doole ci réew mi di Sénégal ginnaaw ba sénégalais yi nekkee ci loolee. la nguuru réewu Sénégal daal di jaaree ci ginnaaw daal di valider quatre candidatures yi nga xam ne dañoo bokk ci système bi ci ñooñee ku ci jiitu moom mooy Anta Babacar Ngom lu tax ñu ne kookee élément wu système bi la moom mooy que ne ci présidentielle 2019 yi ñu génn moom ak papaam mii di Babacar Ngom dañoo àndoon di jàppale kii président Macky Sall ngir ñu daal di koy falaat ci bopp réew mii di Sénégal kookee di Anta Babacar Ngom avant ñuy commencé liñ dippee parrainage ci réew mii di Sénégal kenn xamu ko woon ginnaaw loole la daal di tàmbalee di dugg ci ruq-ruqaat yi ci réew mi di Sénégal foofe nag la nguur gi daal di sukkandiku ba daal di valider candidature ci premier tour yi ci conseil constitutionnel. waaye lu leer ba am mooy que ne kii di Anta Babacar Ngom mënut dugg fu kii di Bougane Gueye Dany duggul ci réew mii di Sénégal te kookee di Bougane Gueye wa conseil constitutionnel dal dina ñi invalider candidature am ginaaw bañ ko ñëkke rëkkale ci liñ dippé parrainage ci réew mi di sénégal ginaaw ki di anta babacar ngom kiñ dippé Boun abdallah jonn nek xaritu ki di président Macky Sall nekkon premier ministre bu gëna yag ci wétu ki di président Macky Sall waye tamit nek ab technocrate bi nga xamné ne amul benn base politique koké di Boun Abdallah John lañ wax ne ci biir conseil constitutionnel dal dina fay valider premier tour yi ci liñ dippee parrainage waaye lu leer ba am mooy que ne kookee di Boun Abdallah Dionne ëppul poids électoral kii di Abdourahmane Diouf waaye kookee daal di nañ invalider candidature am daal di bàyyi kii di Boun Abdallah Dionne daal di passé ci parrainage yi ginnaaw kii di Boun Abdallah Dionne kiñ dippee Mame Boye Diao kookee tamit comme Anta Babacar Ngom ak kii di Boun Abdallah Dionne amul benn poids électoral bu kom mën a may mu daal di valider candidature am biir conseil constitutionnel la bu fekkoon ne foofee amuloon ab parparloo ginnaaw kookee di Mame Boye kii di Aly Ngouille Ndiaye mu nga xam ne tamit moom mooy meeru Linguère kookee tamit daal dinañuy valider candidature am biir conseil constitutionnel kookee di Aly Ngouille Ndiaye donte moom mooy meeru Linguère donte nekkoon na fi ministre de l'intérieur waaye bu ñu ko tegee ci yoon kookee kenn warta valider candidature am ba noppi daal di bàyyi candidature kii di Bougane Gueye dani ndax pour ñu valider sa candidature ci réew mi di Sénégal du benn localité booy am base politique rek moom mooy doon ngir ñu daal di valider sa candidature waaye faaw nga daal di motal lum deedee dix raisons ci réew mi di Sénégal ngir ñu daal di valider sa parrainage ci biir conseil constitutionnel te loolee bu ko kii di Bougane Gueye dani amul ci réew mi di Sénégal mën nañoo njort que ne. kii di Aly Ngouille Ndiaye amul poids électoral bi nga xam ne ne mën na koo permettre ñu daal di valider candidature am ci premier tour yi ci biir conseil constitutionnel jëmale ko ci ligne di parenage ginnaaw li ni mel kii di may Maimouna Bousso bokk ci leaderu coalition bi ñu dippee yeewu askan wi yëkkati na ay kàddu daal di xamal Sénégalais yi que ne kii di Issa Sall te mu nekk directeur caisse des dépôts et consignation ci réew mii di Sénégal moo ngi amal ay ñaawteef jëmale ko ci patriote yi. ci localité ba mu dëkk si li ni mel kii di may Maimouna Bousso ne kii di Issa Sall ginnaaw ba muy organiser ay manifestation politique ca Mbour géej ba mu dëkk ne si li ni mel ay jeunes pastafien maanaam ñu bokk ci kii di président Ousmane Sonko dañoo ñoon foofee di ko sonkoriser ne si li mel nag kii di Issa Sall dafa porté woon plainte daal di koy jëmale ci jeune patriote yooye ne ginnaaw loolee la waa polisu Mbour daal di jàpp jeune patriote yooyee daal di leen di dóor mandat de dépôt. kii di Maimouna Bousso daal di wéyal ne ci ban réew ci àdduna bi lañ gis ay nit yuy woy ay woy politique ñu daal di leen di jàpp daal di leen di tëj ci kaso bi. ne li ni mel lu muy wane rek mooy que ne réewu Sénégal nekkul état de droit waaye tamit li neen lu muy tekki rek moom mooy que ne kii président Macky Sall jeunes yi mu waroon a jox liggéey ñooñee la joxut liggéey. ñooñee la joxul espoir ñooñee ñoo koy xaar ci mbedd mi di xaar partisan mi di xaar képp ku bokk ci moom ngir daal di lay sonkoriser. ne li ni mel nag lu kii président Macky Sall ak i ñooñam di ci jàpp jeunes yi nañ xam ko ne loolee du teemu daal di dakk ndax li ni mel jeune sénégalais yi dinañ ko la ba ci campagne électorale bi nga xam ne ne kii di président Macky Sall. ku mu fi bàyyi ngir kookee daal di koy uutu ci bopp réew mi te li ni mel du am mukk kookee fu mu tourné ci réewu Sénégal dinañ ko fa sonkoriser fépp fu mu dem ne dina fa amal ay campagne électorale ne kookee dinañ ko fa yuuxoo te dina dégg sonkorisation ginnaaw li ni mel kii di nu li bokk ci leaderu parti bii di Pastef yëkkati na ay kàddu daal di xamal waa Pastef que ne waa nguur gi lan nañ plan pour ñu décourager waaye ne mun daal di tombé ci piège boobee. kii di Ousseynou lii ne depuis bañ commencé processus électoral ci réew mi di Sénégal nguur gi moo ngi ciy amal ay njuuj njaaj yi nga xam ne ñëpp dañ ciy teg seen bët ne li ni mel nag am na patriote yi nga xam ne ne dañoo jàpp que ne kiir président Macky sàll sàcc na élection yooyee ba noppi kon bépp effort bu ñuy def ngir ne dañuy dem voté ji loolee du leen jëriñ dara ndax kiir président Macky Sall sàtti na élection yooyu ba noppi pour kii di Amadou Ba di candidat am daal di gagné élection yooye waaye kii di Ousseynou li ne ne loole nguur gi yëpp amal du lenn lu dul benn pièce bu am benn objectif bu précis te objectif boobee moom mooy ñu daal di décourager loo lu ëpp ci patriotes yi bu ko defee ñooñee buñ voté wul

pour loolee daal di am faaw mu dem daal di voté le 25 février 2024 bi ñu jëm waaye ne ginnaaw loolee tamit ngir ñu libérer kii di président Ousmane Sonko ak kullu détenu politique ci réew mii di Sénégal ngir loolee daal di am faaw tamit ñu daam daal di voté le 25 février 2024 bi ñu jëm ne li ni mel bu ko kullu patriote defee ci boppam rek kon le 25 février 2024 bi ñu jëm kenn du ko jiit ci bureau de vote am lii lañ leen andiloon comme actualité ñoo ngi leen di jox dig daje ci yeneen i mbir incha allah